ci tënk que ñi nga xam ne ñoom ñoo fi toog tey dañu nekk ci benn kuréel boo xam ne mi ngi tudd groupe de réponse contre les violences électorales maanaam li ko war li ko tax a jóg mooy xool lépp loo xam ne vraiment ay fitna la yoo xam ne ñu ngi koy teg doomu aadama yi wala ñu ngi koy indi ci élection yi ñu xool naka la ñuy def ba loolu ñu mën ko saytu ci ay saafara kuréel boobu nag dañ koy def ci cadre benn projet boo xam ne mu ngi tudd EMAM suñu mbokk waneb Sénégal yi donc dadi di euh, euh jiite projet boobu donc euh, projet bi liko ko tax moy jóg mooy ba lépp lu nga xamné violence li am ci vraiment quand même processus électoral ñu sét nu ñuy def bu ko mënul dakkal aussi vraiment ñu fexe ba ko donc ñi tok fi yëpp ay organisation lañu yo xamné ni donc ci groupe national de réponse bi lañu ñu ay organisation yo xamné partenaire u Sénégal lañu. alors li nga xamné mom moom tax ñuy def déclaration bi mooy li nga xam ne moom moo xew ci réew mi yéen ñëpp gis ngeen ne depuis le 3 février dañu xëy rek à quelques heures de l'ouverture de la campagne président de la génn def discours daan ne kat dakkal na lépp lépp nañ ko teg ci suuf jël na décret boo xam ne dafay gàntal décret ba mu jëloon pour convoquer collège électoral bi pour que nit ñi mën a ñëw voter le 25. loolu nag mu indi vraiment njàqare bu rëy ci vraiment doomu aadama yi ak ci citoyen yi ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi nekkoon di waajal élection yi candidat yeeg ñun ñep mu nek euh, jaxaré ci ñom lool nak indi vraiment ci réew mi ay jafé jafé ay ay ay vraiment tension bo xamné ne actuellement daanaka depuis le 3 ba léegi gis ngeen ni réew mi nekkul ci jamm fo tourner ci mbedd yi nit ñaa ñaxtu tak der ya ngi ci mbedd yi te loolu vraiment dafa nek lo xamné ne baaxul vraiment pour stabilité am réew le Sénégal dañ ko yag xam ci mu nek réew mo xamné ne réew démocratie la parce que depuis 1848 danaka lu ëpp téméré at ak lu toog depuis ay jamono ñom euh, Ngalandou Carpo Blaise Sénégal ñu ngi voté donc amna ñu tradition té dañu nekkoon li ñu wax rek modèle démocratique ci Afrique nekk vitrine de la démocratie alors lool nak dafa nekk lo xamné vraiment vraiment euh, dafa euh, Waro ak tay li nga xamné ne moy mooy canu réew mi moy manam li ñuy wax tay constitution donc loolu vraiment daf ñu waroo légui donté lolu vraiment aussi ñepp ko ñaawlu dafa nek lo xamné ne vraiment dëppoowul ak yoon mais euh, dafa maanaam même waro ak charte réew mi ci kaw charte bi dafa wax né conseil constitutionnel bu ñu xasee ba jël dogal dogal bobu ñepp dañ ko wara nang muy président de la république muy citoyen muy autorité ñepp dañ ko wara nang mais dañu gis ne lolu vraiment defuñu ko conseil constitutionnel dafa jël dogal daal di am ay candidat yoo xam ne ne ñii bu ñu saytoo ñoom ñoo war a bokk vraiment ñu daal di ñëw donc arrêté processus électoral bi loolu déjà nekk na loo xam ne vraiment euh, rafetlu wuñ ko mais li ci am euh, solo et li nga xam ne moom lañ ci gën a ñaawlu tamit mooy maanaam gis nañu loolu lépp li ko lal dañu ne maanaam dafa am crise institutionnelle mais crise institutionnelle mooy crise boo xam ne maanaam euh, pouvoir yi nga xam ne ñoom ñoo séq maanaam réew mi muy exécutif ak pouvoir judiciaire ak euh, euh, euh, comment dire pouvoir législatif dañu am manam ay pëccxoo maanaam institution yi dañu bloqué doxuñu té lolu ñepp gis nañ ne amul institution yi ñu ngi dox assemblée mi ngi dox justice mi ngi dox exécutif gouvernement bi duñu dox donc lolu lañu indi vraiment comme manam ab lay té lay woowu nak vraiment dañu gis limu indi moy vraiment dafa nasaxal démocratie ci réew mi ba nek nek ay facteurs yo indi manam tension dafay fit do vraiment donc li duñ ko nangou rax ci ñu aussi vraiment dañ ko ñaawlu mbir mi bañ ko assemblée diko député yi nga projet de loi Nous dañu yoni vraiment ay euh, unité d'élite gendarmerie GIGN ñu ñëw leen ci anam anam yu rafetul la anam yo vraiment ko ñaawlu démocrate moo xam ñi nekk Sénégal ak ñi nekk bitim réew te loolu dafa rafetul alors bi nga xamee ne nag loolu yëpp am na ñun groupe de réponse bi ñu daje comme ni nga xam ne ni ñu kuréeloo dañoo am ay nit ñoo xam ne ay ndaw yoo xam ne ñoo nekk ci euh, gox-goxaat yi ñooñu maanaam ñoom ñoo fay nekk suñu bët suñu loxo ak suñu tànk pour di xool li fay am ci wàllu ay violence ay fitna ñu ñu koy jottali ñu ñu koy analyser di seet yan saafara lañ ci mën a indi

ba ay nit di ci faatu di génne loo xam ne nii ñu ay arme létale di leen ko tiire am na ci tey ak ma ñetti ndaw yoo xam ne donc gaañu gaañu nañ ci ak suñu ay mbokk journalistes yoo xam ne loolu ñëpp teg nañ ci seen bët ci télévision yi ñu jàpp leen toroxal leen ñu ñu dóor leen ba ñu mujjee dem hôpital yooyu yëpp vraiment ñu gis ne euh, vraiment dafa loo xam ne sigilul réew mi lu ñaaw la rax ci dolli ci wàllu sañ-sañu doomu aadama itam gis nañu ñu jël ay mesures yoo xam ne maanaam vraiment dafa dafa dafa dafa tënk suñu ay liberté ak suñu sañ-sañ gis ngeen ñu couper internet bi à chaque fois bu ñu yëngoo ñu couper internet bi yàq ay liggéeyu nit ñoo xam ne nit ñu bari la jàpp yenn chaîne télévision yi ñu ci mel ni Walfadjri ñu tëj ko même bu fekkee sax xëy na am na intervention ba ñu delloowaat leen seen licence yooyu yëpp gis nañ ne vraiment euh, it ay ay ñaawteef la yoo xam ne euh, kenn rafetlu ko donc ñun groupe de réponse ñu ngi vraiment ñaawlu yooyu am ak décision bi nga xam ne jël nañ ko def projet de loi pour reporter élection bi donc ba le 15 décembre parce que loolu bu ñu ko defee dafa ñuy prolonger mandat président de la république te suñu constitution dafa wax ne président de la république daanaka mandat juróomi at la donc bu fekkee ne day euh, euh, jeex na juróomi at yi surtout que def na ñaari mandat donc dafa war a dem loolu donc violation la donc tay li ñuy wax ñun groupe national de réponse contre les violences électorales lepp lo xamné décision la buñu jël pour manam toxal élection wala ñu dakh ko ñun lolu d'accorduñ ci ñun lolu dakh nañ ko kon nak ci kaw lolu ñu ngi ñaan président de la république calendrier électoral bi nga xamné dañ ko lolu mu nekk vraiment ay délai constitutionnel ñu waron dem élection le 25 février 2024 ñu ngi ñaan président de la république non seulement mu respecter calendrier bobu mais également mu fexe ba jël ay matukaay comme moom mooy njiitu réew mi pour que fitna yi nga xam ne ñu ngi koy teg doomu aadama yi ak nit ñi ñi leen di bund xaatalee ci seen i sañ-sañ ak seen i àq ak seen i loolu ñu ngi koy ñaan mu dàkkal ko ci du mu gën a gaawee ba ca des ñu koy message la boo xam ne ñu ngi koy euh, envoyé waa conseil constitutionnel dafa nekk kuréel boo xam ne nii kuréel bu bu bu am dayo la ñi fa nekk bañ nañ ko ba nañ di les sept sages kon ñooñu li di vraiment ci constitution bi ci constitution bi rek lépp loo xam nous ñu comme dogal na nekk loo xam ne dafay dëppoo ak constitution bi maanaam lépp loo xam ne dañ koy aussi ñu ko avons boo xam donc ci surtout ci vraiment li nga nous bi nga président de la république mandat bi wax le 2 avril lay

parce que lépp lu nga xam ne ab xibaar la wala luy xew ci réew wala ci àddina bi journalistes yi vraiment ñoom ñooy tas xabaar yi nit ñi di ko xam mais ñu leen di bund xatal ci kaw liggéey boobu ñuy def loolu vraiment ñaawlu nañ ko am na ci ñoo xam ne teg nañu vraiment ay fitna yu métti seen kaw dóor leen bay am na ñu ci dem hôpital seen yenn euh, confrères yi ak ñi nga xam ne tamit vraiment ay jigéen lañu vraiment ñu leen di teg yenn fitna yi loolu ñëpp gis nañ ko ci télévision yi ñu jël ay jigéen di leen toroxal dugal leen ci auto police takk leen et cetera wala di leen dóor ay coup de loolu aussi vraiment ñun ñaawlu nañ ko loolu ci fii ñu toll ni Sénégal loolu kenn waratu ko fi nangu bi ci des mooy tamit ñu gis ay suñu mbokk way laago yi tamit nga xam ne ay citoyens la ñu ci réew mi la ñu bokk nit kuy manifester yore drapeau toog ci sa pousse-pousse di dem ñu ñëw wàcc la ci pousse-pousse di daaneel la di la dóor di la toroxal loolu tamit nekk na ay action yoo xam ne vraiment yu ñaaw la donc loolu yëpp ñu ngi leen di masawu ñi nga xam ne gaañu nañ ci ñi nga xam ne yàlla jël na ci seen bakkan aussi ñu ngi jaale seeni mbokk également ñi nga xam ne am nañ ci ay gaañu gaañu tamit ñoo ñu ngi leen di masawu donc loolu laa amoon lu may wax donc ci tënk ci olof maa ngi leen di euh, jërëjëf. moom mooy yoon mooy projet de loi bu fekkee dañ ko def ba déposer ko assemblée nationale euh, dafa am lu ñuy wax euh, maanaam projet de loi bi. dañ koy suspendre bu fekkee ne dañu def projet de loi xam nga am na délai boo xam ci président de la République war promulguer mais bu faites dafa am ñoo xam ne attaquer projet de loi donc devant le conseil constitutionnel loolu fait suspendre projet de loi Le président donc d'autres ko euh, euh, disons promulguer ce qui veut dire que ci tant que conseil constitutionnel àdduwul nous war faire bàyyi campagne électorale bi mu continuer donc moi tax gis nga am ci yenn candidat, yoo xam ne ñu ngi ci terrain bi campagne moo xam ci forme yu ñu koy defee ñu ngi def ay caravane am avons ñoom des ngi dugg di distribuer ay flyers ak donc pour man dama jàpp ne techniquement ci li ñu xam ci wàllu élection parce que depuis fanweeri at xëy na ñu ngi élection le 25 euh, février parce que élection lan la organisation matérielle organisation matérielle ay bulletins yooyu defar ay documents électoraux ak matériel yo xam ne di nga ko vraiment bureau de vote et lieu de vote matériel lourd bi li ñuy wax ay urne ay euh, isoloir yooyu yëpp daanaka yooyu yëpp dem na ba noppi bu dee bulletin yi imprimeurs yi defar nañu bulletin yëpp ba noppi vingt candidats yi ku nekk defaral nañ la bulletin muy cent soixante millions de bulletins yoo xam ne pare na mu ngi ñu stocké yow waroon dem bitim réew dem na bitim réew li des mooy li nga xam ne moom la ñu war a tas ci biir réew mi te loolu je pense que boo demee force de défense ak de sécurité ak armée amnañu ay moyens logistiques yo xamné mën nañu fexé ñii par camion ni par avion ni par hélicoptère matériel bi buñ ko bëggoon séddale ci ñaar ñetti fan fep fu mu ag ci Sénégal dina fa ag donc techniquement amul warul am problème maintenant nak bu féké conseil bi dafa joxé décision né élection yi nag nañ ko maintenir parce que lolu moy bëgg-bëggu majorité sénégalais yi donc mën nañ ko def parce que euh li nga xamné donc mom mo am solo mooy nee naa ko sax nit ñi ñu ngi campagne mais campagne bi lii nga xam ne def nañ ko ci wàllu vraiment ay jalgati ak ay pexe dafa dem ba tax tey Sénégal yëpp daanaka tout le monde est outré ñu koy wax ñëpp la ñëpp ñëpp ñoo nekk ci naxar ñëpp la affaire bi metti de sorte que tey nit ñi sax bu doon campagne bu normal moo xam ne dañuy bàyyi candidat yi ku nekk indi sa programme ñu wax sénégalais ay xoolkat

mais en tout état de cause bu fekkee ne même jàpp nañ ne am na ay contraintes yoo xam ne nii am na mën nañu xool date bi peut-être mais ci kaw loo xam ne acteurs yi dañ koy waxtaane nu ñu koy toxalee maanaam comme dañu jàppoon ne le 25 la mën nañ ko toxal ñu dem peut-être xëy na ci biir mois de mars set en tout cas date boo xam ne bu ko ca defee bala ñuy àgg ci cëppaandaw gi mois d'avril vraiment nga xam ne ci le mandat du président di jeex dina fekk ñu voter bu dee voté bi ci benn tour lay yem nous xam ku gagné bu nous dañuy dem deuxième tour le mandat président a expiré nous savons aussi qui gagné Beaucoup de nous nous installé coq, vraiment mi le parce que défi défis sont nañu li ñu Nous liggéey bari nañu Nous avons problème nous bari nañu je crois que faudra que beneen équipe bu bees bo xamné moy taxaw pour règlement régler problème yoy té loolu japp nañ ne vraiment lu mën nek la mais en tout cas de cause nag lépp mi ngi dépendre aussi ci conseil constitutionnel ñepp a ngi koy déglu mo tax ñun ñu wax ci suñu déclaration né conseil constitutionnel nañu vraiment jël décision bo xamné dañ koy jël seen axulaay taala ci lo xamné dañ ko tek ci ci droit hein, ak vraiment mu mengo constitution bi parce que loolu mom moy indi donc jamm ci réew bonsoir ñi nga xamné les nañ nañ leen ci manifestation yi pour dañ koy lu parce que nit ñoo xamné dañu di manifester tojuñu di vraiment librement ñu japp leen parce que bu leen violence yi ci ci force de l'ordre yi la jogé. ñoo gis les tirs de grenades lacrymogènes les tirs par vraiment euh, arme à feu etc. donc ñu euh, ñi bu ñu donc je pense que ñu bàyyi leen d'un loolu dañ koy Lou. et au delà de ñun nous ne bëgg pas ñëpp ñoo xam ne jàpp nañ leen ci ay manifestations politiques ci li ci arbitrairement diggante 2021 ak léegi nañ leen bàyyi parce que loolu lii gën a tax jàmm ak dal sax ci réew mi loolu ci la bokk maintenant ci wàllu dialogue bi nag ñun dañuy jàpp ne en tout cas organisation de la société civile yu bëri que dialogue bi boo nous njëriñam parce que yàgg nañ fi def ay dialogue yoo xam

part de ce xëy na mën nañu wax affaire dialogue mën nañu xool ci wàllu processus électoral bi tey gis ngeen mbiru fichier bi loolu mën nañ ci waxtaan tey ñuy wax ne boo am na cent mille personnes yoo xam ne nekkuñu fichier ak yeneen yoo xam ne am na ponk yoo xam ne mën nañ ko waxtaan ci processus électoral bi pour seet naka la ñuy def pour élection yi nekk élection yoo xam ne yu leer lay doon waaye fi mu ne nii vraiment dialogue bi pour man bon xaw ma pour man lan mooy ci ci lan la ñu war a dialogue loolu vraiment man problème la ci sama bopp. Euh, président Macky Sall xëy na moom xam na li tax nu mu tëddi muy woote dialogue mais dialogue bi daal xam quoi boo dégloo nit ñi moom amul kenn koo xam ne moo xam société civile la moo xam politique la ñi ci ëpp vraiment ñoom déjà dumo yi nañu jaloog boobu kon nag je pense que dialogue boobu amul njariñ li ñu bëgg daal lii àlli kalaj bi mooy ñu dem élection ñu tànn njiit bu bees vraiment ñu jàll ci leneen jërëjëf